bokk yi dal leen ak jàmm la xewoon digganteeg tribunal bu ndakaaru commissariat bu port ak marché Sandaga ba yéenekaay yi duppee woon ko prison break di ab film nekk loo xam ne si la l'observateur del siwaat ngir gën ko yaatal muy woy prisonniers yi nga xam ne ñooy rëccoon si otom police ba ne poymet réer mër foofe sa marché Sandaga ba ñoom ñaar ñooñee nga xam ne ba léegi gisaguñ leen yéenekaay bi de l'observateur xëy fësal seeni tur Moussa Ndaw ak Cheikh Tidiane Mboup la ñuy wuyoo yenekaay bi naan ñoom ñii ba léegi kenn tegagu leen bët waaye mu xëy samp ay laaj nag yoo xam ne fës na loolu si biir yéenekaay bi naan mbir mi naka la mën a demee dëgg xanaa ñoom ñi defuñu li ñu tàmm ma def maanaam boole ñaari prisonnier daal leen di manote wala xanaa oto boobu dañ koo tëjul woon muy ay laaj yoo xam te ni bii yéenekaay bi xëy na samp ko ndax dafay mel ni dafa ub boppam ub boppam sénégalais yu bëri mooy ay jéego yoo xam ne takk der yi war nañ koo def ngir indi ay leeral ci mbir mu ni mel jéego yi mu bëgg a def ba faagaagal képp koo xam ne moo bëgg a def ñaaw teef mu ngi ci xëdu njëkku enquête yéenekaay moom mi nga xam te ni bii moo di général de division moom mi nga xam ni bii jamono ji moo jiite gendarmerie nationale fii ci réewum Sénégal ni ki démb bi nga xam ne si lañ ko doon teg si bopp gendarmerie xamle na ak liggéey yi nga xam te ni bi moom la naal ak li mu yéene def si bopp gendarmerie nationale bokk na sax xeex ñaawteef yi nga xam ne mooy am si réewum Sénégal rawatina ñi gën a néew doole ñu leen di bunduxataal waaye tamit wàllum terrorisme gi nga xam ne ñu ngi koy dégg si dëkk yi war Sénégal ñu war ko fànq ba du yegg si fii si biir réew mi waaye it bokk na ci ab xeexam fànq accident yu bëri yi nga xam ne mu ngi am fii si biir réew mi l'observateur naan loolee kay war na cee gaaw lool ndaxte hécatombe dëgg mooy am si suñu yoon yi fii si réewum Sénégal mu ngi naan si fukki weer yi ñu génn rek lu toll si juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan si dem géeg dikk gi si kaw yoon wi mu naan diwaanu Louga moom fa la mbir mi gën a yéemee ndaxte lu toll si fukk ak juróomi doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan di ñatt téeméer ak juróom-benn fukk ci victime yoo xam ne daanaka si ñaari weer képp la toll diwaanu Thiès yéeni bi naan victime ya moom yegg nañ si junni ak lu toftal ñi nga xam ne faatu nañ si diggante juillet octobre yegg na si fukk ak ñett te lii yéeni kaay bi naan war nañ koo càmbar ngir man koo saafara li waa SAES e jàpp ne war nañ ko càmbar dëgg nag mooy plateforme bi nga xam ne moom la ñu duppee Campi Sène di fi nga xamante ni bii fi la way am bac yu yees yi di bindoo ngir ñu man leen a orienté si université yi kuréel syndicat gii di yëngu si njàng mu kaw mi nag jàpp na ne ak yàkkamte ak gaawtu dafa am lool ci orientation yi nga xamante ni bii moom la ñuy orienté di way am bac yu yees yi nga xam ne ñoom ñëpp si université publique yi la ñu war a jëm ni ki ren ka war a jëm si kanamu procureur de la république moo di Seydina Fall Bougazeli buñ sukkandikoo si Vox Populi moom ak mbirum phobie yi nga xamante ni bii boobe ba léegi mu ngi gàll si ndoddam ñu koy toppee moom moomee ginnaaw garde à xam ne na ko foofee si section de chef bu Colobane yéenekaay yëpp nag ñu ngi xëy naan tey jii dinañ ko jébbal procureur mu ngi naan ki nga xam ne moo fi nekkoon député ak ay complice am bu ñu moytuwut dinañu am li ñuy wax mandat de dépôt la bi naan garde à vue am dañ cee dolli woon benn fan waaye teewul moom Seydina Fall Bougazelli dinañ tey ji si ajuma ji mu koy cokkaas waa CEDEAO naan dafay mel ni dañu ne tekk tekkaaral si mbir mi yooyu ñu si te yàbbi wuñu si l'observateur naan Seydina Fall jooyeti na si section de recherche bu Colobane ginnaaw bi ñu ko fi doon dégluwaat waaye ak si man di am dinañ ko naan si wàllu woowu nag am am na ñaar ñoo xam ne yoon teggi na leen loxo mu di Kalidou Sy ak ki nga xam ne moo di corom ji mu àndaloon di Irène Perera moom Kalidou Sy moomee la ñu waxoon ne moom moomoon restaurant bi nga xam ne moo doon delloo ay faux billets ay clientam source aanaan ajuma ji kay Seydina Fall mu ngi koy jullee si ginnaaw sëñ Bass maanaam moom ak procureur de la république dinañu gise tey ñi gisee ñi ki démb moo di président Abdoulaye Wade ak Pape Diop mi jiital bokk gis-gis président Abdoulaye Wade dafa teewoon ni ki démb mu ngi jébbal ko njaalam ginnaaw rakkam joo xam ne dafa faatu ak kenn si jegeñaaleem foofee nag kàddu yi nga xam te ni bii moo a fës moo di président Abdoulaye Wade mi nga xam ne daanaka yéy na yàbbi si mbir moo xam ne kenn mosu koo dégg mu wax si mu di ay atam mu ngi naan dëgg la naam màggat na lool waaye màggat sori naag lool li nga xam ne moo di tawat di feebar. Vox Populi di feelu dëgg nag les échos naan Abdoulaye Wade li mu wax kay moo di màggat état d'esprit la rek maanaam si am xel lañ koy jàppee mu ngi naan nag ni nga xam ne noonu la ko sénégalais yi jàppee te fonk ko kawe na si moom lool te seet na ab xolam waaye gisul dëgg sax lan la leen defal ba mérité lu ni mel moom Pape Diop mi nga xam ni bi moom la jaale ji woon mu ngay wax naan nit ku mel ni Abdoulaye Wade réew mi da koo soxla lool si biir Les Échos mu ngi naan réalisation yi nga xam ne nag Abdoulaye Wade def na ko fii bu ñu xool rek li ñu mën a teg bët waaye nañu xool dëgg-dëgg li nga xam ne moo di ak jikkoom ak valeur yi nga xam ne moom la làmbool jaar si yooyu le tànk mu ngi naan nag moom mi Macky sàll ku dëgër bopp la ndaxte du diglu kenn mënam lëmm képp lay doxee moom Macky sàll ak li ko soxal jamono ji mooy meddi Ndakaaru ne booy yi set wecc waaye tamit kenn du gise di garage mécanicien yu jaarul yoon mooy li nga xam ne moom la source a xëy fësal si xët mu njëkk mu naan ay koppa dëgg nag la Macky Sall fas yéene génnee ngir recaser ñi nga xam ne ñoo di mécanicien yi mu ngi naan kay toll na si fanweeri hectares yoo xam ne moom la amal foofu sa pôle urbain bu Diamniadio ngir ñoom ñii ñu mën faa nekk yéenekaay bi naan ñoom mécaniciens yi ak Macky Sall ñu déggoo nañ ci ay kàddu ne kenn du dégg pire benn mécanicien fekk yooyu la liggéey yeggul ci diwaanu Diamniadio mu ngi naan nag li nar a ñuul ci soow mi moo di fukki milliards ak juróom la soxla waaye juróomi milliards képp moom lañ tegagul ci table bi jeexal ak wàllum tàggat yaram ak Soleil yéenekaay mi xëy naan xanaa Aliou Cissé moom mu ngay làmbatu ba léegi ci fukk ak benn joueur yi nga xam ne moo di onze de départ am ndaxte mu ngay biral naan ci atum 2019 fanweeri joueur ak toll si fanweeri jour maanaam fukki match ak benn yu mujj yi nga xam ne réewum Sénégal amal na ko Aliou Cissé teg na si fukki onze de départ ak benn yu wuute muy mel ni day làmbatu ba léegi jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah.